بسم الله الرحمن الرحيم ci turu yàlla mi yërëm mboole mi jaamam di jagleel ñàkk a gëm yërmaande yowmal qiyaama li ilaafi Quraysh quraysh ngir ànd ga nga xam ne doon na ko ànd waa quraysh ilaafihim rixlata alchitaai walsayf booloo gañ daan booloo di tukki ci jamonoy noor ak jamonoy nawet falyacbuduu rabba hada albayt ay way nañ jaamu fi nga xam ne mooy borom nit bi di kaaba gi alladi أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف kooku nga xam ne moo leen leel ba xiifatuñu moo leen may kóolute ba amatuñu lu ñuy ragal